وصحبه دوي نوالي الوالي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور, نور وقلبي أرشدا سدد لساني نور جناني صفي أماني وسد برائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي نيوغي سانتو بروم بي تبارك وتعالى ni mu yellee ci jëmmam jiite te as njaamam lottu ci lool di julli tey sëlmal ci sayidul kawnayni wattaqalayni walfariqayni min urbin wa min ajami sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla dolli ko xéewal ak jàmm mook ay saxaabaam ak mboolem ña toppoon ca ñooña ak ña ca toppaat waaye mbokk yi di yeesal suñu pas-pas ak suñu jaayant ci Serigne Touba Xaadimu Rasul di leen nuyu nuyoo bi nga xam ne moo gën a tedd te gën a kawe te gën a jot te gën a jotale mooy nuyoo bi ñu yàlla boole te mooy nuyoo bi waa aljanna di nuyoo te moo tàmbalee ci jàmm te jeexee ci barke te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. téléspectateur téléspectatrice auditeur auditrice yi nga xam ne. ñooy topp seen télé réew mi TV ci seen émission bii di keppaaru mag ñi di am dimanche bu jot ngeen baaxoo ko ànd ak seen bokk sëñ Baara Mbàkke waaye man kaa topp ci TNT canal 108 waaye di ko topp it ci 97.5 ci réew mi FM ñoo ngi leen di nuyu nuyoo boobu nga xam ne moom lañ jàllale léegi nuyoo boobu it ñu di ci jiital boroom ngëneel Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi nga xam ne tey moo amee jotaay Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasoul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 yàlla na ko yàlla sàmm ba mu mottali mboolim ay yéeneem tam ànd kook mboolim njaboot gi yépp nuyoo boobu it lay yóbbu ci kër maam Cheikh Omar teg ko ci loxob suñu wayjur Thierno Bachir Tall di ko ñaanal moom it yàlla yàggal ko ba mu mottali mboolim ay yéeneem nuyoo boobu it lañuy yóbbu yóbbu Medina Baye euh, jox ko Baye Cheikh Mahi Mahi Niass waaye moom la ñu yóbbu it Léona Niassène jox ko Baye Cheikh Tidiane waaye moom lañuy ñuy yóbbu it Canaba nuyoo it moom la ñuy yóbbu Ndiassane nuyo boobu moom la ñuy yóbbu fas Touré ci Baye Abdoul Aziz waaye nuyo boobu it la ñuy yóbbu ci mbooleem kër yi diine yépp yi ma tudd ak yi ma tuddul nuyoo boobu it la jox mbooleem ñi nga xam ne ñoo ngi safoo tey saxoo di topp suñuy euh, émission di ci jariñu lum néew néew néew néew néew néew ñoo ngi ñaan lu ciy njariñ yàlla nañu ko yàlla boole mbokk yi dellu siwaat nañ ci seen émission keppaaru mag ñi di amee fii ci télé réew mi TV waaye nekk fii ci Sodida immeuble Alxaaji Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke di ñaanal kilifa gi nga xam ne suñu borom dogal na bu ngeen man mënee dégg suñuy kàddu ba man cee jariñu ci loxoom la ko yàlla jaarale Alxaaji Mbañik Jóob di ko ñaanal yàlla sàmm ko waaye yàlla it may ko ndam ci mboolem ay liggéeyam naal wi nga xam ne moom la naalal umma bi société bi yàlla na yàlla may ko ci ndam yu kawee njortu di ko ñaanal mboolem ñi nga xam ne ñoom lañu ñu àddal liggéey bi li ko dalee ci kilifa gi DG ba ci ku ci gën a suufe sax amu ci waaye jaar ci technicien bi nga xam ne moom ngeen mën a moom moo jàppandal xaranda gi ba ngeen maanoo jàkkaarloog suñu jëmbu Mouhamed Cissokho seen émission keppaaru mag ñi niñ leen koy présenté dimanche bu jot ni baaxoo mooy fàttaliku suñuy mag mag ñi nga xam ne bi yàlla joxee Seydina Muhammad alayhi salaatu mu liggéey ci liggéey bu rëy boobu ba muy dem daa am lum ñu bàyyee woon mooy jottali leen sama njàngale donte benn aaya la mooy donte jenn wax la ju yonent bi aleyhi salaatu wax ko kenn ku ci nekk am nga ci waar woo ci war a way suñu saxaaba yi bay nañ seen waar taabia ya bay seen waar taabia taabia ya bay seen waar ba ci suñuy maam yi nga xam ne réew mi ñu dëkk muy a Sénégal ñoom liggéey nañ ci liggéey bu rëy ba tey ñun ñu mën a judd doon ay jullit loolu ñi nga xam ne ñoo ko liggéey muy suñu maam yooyu ñoom la ñuy fàttali ko ci seen émission bi di keppaaru mag ñi keppaaru mag ñi ci ñaari forme yi rek lay dikkee benn ñu tudd kenn ci suñ mag ñooñu waxtaane ko wala ñu jukki lenn ci seenum njàngale jàngat ja ja jàngale ko njàngale moomu tey ci lañ bëgg a dikk xam ngeen ne tàmbali woon nañu ab téere boo xam ne maj majmuwa lañ koy wax boo xam ne ay wasaaya maanaam ay dénkaan ak ay leetar ak ay xutba wala ay tomb yu am njariñ yoo xam ne a Seexul Xadim radiyallahu anhu mas na koo def doomam a Abdul Ahad Mbàkke mooy ki nga xam ne moo ko dajale woo dajale loo woon bindulu ko waaye mollu téere bi tasaare ko ñëpp mënuñoo am téere bi waaye nag kàddu gi ñi ëpp mën nañ koo dégg mooy buñ ko tegee fii ci te te seen émission keppaaru mag ñi jàngal jàngale ko fàttali ci ay tomb ku mënta jote ci téere bi te mën a jote ci kàddu gi da ci mën a jariñu noonu lañ ko fas yéene defee waat incha allahu taala tàmbali woon nañ ci ba jëloon ci ñaari bind ñetti bind xam naa tey lañuy jël ñeenteelu darsa bi insha allahu taala téere boobu ay waxtaan la yoo xam ne léeg-léeg ah, sëñ Tuba ayib alquran lay indi firi ko léeg-léeg mu indi xadis yonent bi aleyhi salaatu indi ko firi ko léeg mu indi xekk ma wax ju am njëriñ sa sees waaye tekki ko tekkin woo xam ne day jéggi dayoo day jéggi saw déggin wa nga xam ne moom nga ci amee woon ci tàmbali ci xadis boo xam ne yonent bi alayhi moo ko waxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ne man kaana yuminu billahi wal yawmil aaxiri fal yaqul xayran aw li yasmut yonent bi nee na ku gëm yàlla waaye gëm bis penc nay wax lu baax walla mu ne muut wala mu noppi alayhi salaatu wasalaam nee na ku gëm yàlla gëm bis penc na ngay wax lu baax mbaa nga noppi loola nag la sëñ tubaat firiwaat waxam jooju muy man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yaqul xayran aw li yasmut kan mooy ki gëm yàlla kan mooy ki gëm yowmul axir waaye lan mooy aw yiw waaye lan mooy conséquence yi nekk ci wax ab safaan moom noonu la ko firee moo tax mu ne al iman de ci xol fa wa amma al imaanu fa bil qalbi wa nutqi bil lisaani wal amalu wa nutqu bil lisaani wal amalu bil jawaarih mu ne iman de moom ci xol lay nekk iman ci xol lay nekk masalan rek mooy innama al amalu binniyaat jëf yépp suñu boroom mi ngi ko tënk ci yéene mbokk yi ki jóge fi waaxu ñaadam ñaadam ñaadam ñaadam dikk daal di wax ci xolam ne fas sama yéene julli daal di jékki-jékki rek kàbbar ni allahu akbar donte liqaamut ak julleem baax na ndax lan mooy yéene an niya mooy yéene ji nga xam ne moo waral lal mbir mi yéene je moo ko tàmbali waaye ki jóge fee ñaadam ñaadam dikk daal di liqaam ak liqaamam daal di kàbbar julli te yéenewut lu rakkaa bari bari bari bari julli ga baaxut kon wa amal iman mbokk yi fa bil qalb gëm yàlla ci xol lay nekk mooy loo xam ne deesu ko làmbu daj ko deesu ko xool gis ko waaye barab ba mu war a nekk boo demee fekk fa lu ko niru mooy koo xam ne ab xolam dara ci imaan nañ ci soo ko xoolee gis ko ci moom waaye soo jëf su jëflantee ak su jëfee nga xam ne lii jëfi jullit dëgg la waaye wan nutqu bil lisaan al iman ginnaaw bi mu doonee fa bil waaye wan nutqu bil lisaan mooy koo xam ne bu waxee nga xam ne waxi jullit la wax waaye wal amalu bil jawaarix mooy koo xam ne bu jëfee nga xam ne jëfi jullit la jëf kon al iman fa bil qalbi waaye wan nutqu bil lisaan waaye wal amalu bil jawaarix al iman mooy man kaana yumin yumin baabtu aman boobu mu indi foofu moom la sëñ bi di leeral ni al iman moom ci xol lay nekk waaye laa a koy tudd waaye cër koy jëf mu ne waman amana billahi amana bi anna kulla ma amilahu aw nataqahu allamahu rabbuh lan mooy al imaanu billah mooy képp koo xam ni kan mooy mu'min kan mooy mu'min mooy képp koo xam ne xam nga ne lépp loo jëf wala nga wax ko yàlla xam na ko tabaaraka wa taala lépp loo xam ne xam jëf nga ko wala nga wax ko borom bi tabaaraka wa taala moo la ko gën a xam nit ñi am na ci ñoo xam ne gëm nañ yàlla waaye dañ ko wóoluwut wala sax seenu ngëm des na ko sikk sàkk ndax liñ ñeme wut a def ci kanamu seenu sëriñ ñeme nañ koo def bu ñu wéetee dañoo fàtte ne buñ toogee seenub sëriñ nit njaay lañ toogal waaye buñ wéetee yàlla lañ wéetal kon kan mooy al mu'min as kan mooy ab jullit dëgg-dëgg mooy koo xam ne fu toog mu ngi bàyyi xel ne bu jëfee yàllaa ngi koy gis bu waxee yàllaa ngi koy dégg mooy lépp loo xam ne jëf na ko wala mu wax ko borom bi tabaraka wa taala xam na ko waaye kan mooy ki nga xam ne moo gëm bis penc mooy koo xam ne nangu na ci xoolam ne ëllëg lépp loo xam ne jëf na ko ci àdduna ëllëgee man xiyaam la ko yàlla di fay mooy lépp lu mu def ci àdduna na bàyyi xel ne yawmul xisaab dana ñëw bis dana ñëw yàlla fay ko lam defoon moo xam lu baax la moo xam safaan bala kon kan mooy al mu'min mooy ku nangu ne lu mu def yàllaa ngi koy gis waaye kan mooy ki gëm bis pénc mooy ki nga xam ne nangu ne lépp lu mu def ëllëg yàlla dana ko ko fay moo xam lu baax la moo xam safaan bala daane ku xam yii nag ñaari ku xam lii lépp fal yaqul xayran wa man alima dalika kullan fal yaqul xayran aw li yasmut ani charri ku xam lii lépp nay wax lu baax wala mu noppi ci ab safaan nay wax lu baax wala muy noppi ci ab safaan mooy kon ku gëm yàlla gëm bis penc lu baax rek nga war a wax soo mënta wax lu baax noppi sëñ Seex Tijaan ndeysaan yàlla na yàlla dolli ko leer ca barsàq muhammadiya maa ngi koy rendre hommage ku bari woon xam-xam ndeysaan te xamoon réew mi xam seen wu dundin maam Cheikh Ahmad Tidiane da daan wax ni Sénégal réew mu naqaree dundee la waaye réew mu neex a deeyee la loolu lu muy tekki mooy Sénégal ñi ëpp ci nit ñi sooy dund duñ wax ci yow lu baax allahu akbar ku xamoon réew mi la macha allah dafa da maanaam ni maîtriser woon nit ñi boo digloo ay waxtaanam day mel ni moom dalay dalay tëralal yoon woo xam ne boo ci jaaree faaw nga mucc mu ne Sénégal réew mu naqaree dundee la waaye réew mu neex a deeyee la nit day dund ñu di ko waxal lu bon man faatu ñu taxaw ne wàlliyu la waaw senegal di looloo fi mooy nit ñi booy dund lu baax liñ xam ci yaw duñ ko wax lu baax liñ xam ci yow duñ ko wax buñ xëyee xëy gis la ngay yor ay oto yor ay kër ñu ne ah sawaay moom mbaa jaaru mbaa jaayu lu ñuy tere suñ la gisee ngay muuru di dem ca jàkk-jàkk ñëw ñu ne ah day ngistal suñ la gisee ngay xool ci suuf ñu ne saay xanaa daa bëgg lu for suñ la gisee ngay téen ñu ne ak bëgg àdduna xool ko du xool sax suuf wow léegi allahu akbar léegi kon lan moo xew comme ñoom lu baax liñ xam ci yow attanuñ koo wax waaye gis nga kooka noona muy kii dem jàkka ji bu faatoo lañ koy door a waxal ni yéey ab jullit piir la woon jàkka jaa doonoon këram waaye jamono bi muy dund di dem jàkka-jàkka ñëw day ngistal la ñuy wax kon fal yaqul xayran aw li yasmut ay waa ji wax leen ci nit ñi lu baax su ngeen xamul lu baax ci ñoom ngeen maandu te noppi fal yaqul xayran aw li yasmut mu ne wal xayru maa yuwaddi saaxibahu ila aljannati lati waada almuttaquun lan mooy aw yiw mooy li nga xam ne day xëcc boroom jëmee ko ci àjjana ji yàlla dig ñi ragal yàlla wa charru maa laa nafaa fiihi aw maa yuwaddi ila naari allati waxida ila naari allati waquuduha annaasu wal xijaara lan mooy aw aw ay aw char mooy loo xam ne amul njariñ te day xëcc nit ki jëmee ko sawara ndax kat mbokk yi xam ngeen ne wax ci ki ab safaan bokk na ci buntub alxayb mooy jëw alxiiba muy jëw takat yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee woon na nee woon na ñaari nit yoo xam ne daa am koo xam ne ci jamono alayhi salaatu wasalaam moom kat dafa njaaloo woon te fekk am na soxna mbokk yi xam ngeen ni ci àtteeb lislaam nit ki am soxna saa yu njaaloo ab àtte mooy rey waaw nit ku am soxna saa yu xasee njaalo maanaam saa yu xasee ànd ak jigéen joo xam ne léewu ko lii ab àtte mooy dañoo war a gas am pax ba mu xóot ñu dugal ko ci ba mu des bopp ba ñu di ko sànni xeer ba mu faatu ñu boole kook bopp ba suul loolu la alayhi salaatu wasalaam digle am ci ay jamonoom nag koo xam ne dafa dikk ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yaa muhammad alayhi salaatu wasalaam man dey dama njaalo te jamono bi may njaalo fekk na ma am soxna alayhi salaatu salaam ne ko wool nit ñi ci pénc mi mu dem woote ji ba nit ñi dikk ci pénc bi alayhi salaatu wassalaam ne nañ ko gasal am pax ñu gasal ko am pax mu dugal ca tànk ya moom waa ji mu taxaw mu ne nit ñi nañ ko sànni xeer ñu di ko sànni xeer ba mu faatu alayhi salaatu wassalaam ne nañ wàqim pax ñu wàqim pax ba mu xóot ñu daal ko cay ñu wàqiwaat pax ma ba mu xóot ñu daal ko cay marmaral daal ko cay suul bi mu noppee moom alayhi salaam wasalaam wàññeeku nag di dox di dellu këram am ñaar ñoo xam ne dañoo toppoon ci ginnaawam mu dégg leen ñuy waxtaani naan diw sàngam man kay xamoon naa ko xamoon naa ni lislaam rey na ko bu yàgg hay moom lii jikkoom la yàgg na koo def am njaalokat la di wax ci moom di wax ci ki nga xam ne moom moo faatu maanaam ki nga xam ne moom dikk na àtte nañ ko àtte lislaam ba ko ba pare alayhi salaatu wasalaam daal di dox ba yem ci mbaam mbaam alximaar mbaam sëf mu dee ba medd alayhi salaatu wasalaam daal di taxaw dal ne leen e yéen ñaar ñii lekk leen ci mbaam mii ndax moo gën li ngeen di def ñu ne ko ah mu ne leen lii ngeen di def muy jëw lekk ci de yàpp mbaam wii moo gën jëw sa mbokkum jullit muy dund ak mu faatu nag ñaar ñooñu daal di ruus mu ne leen maa ngi giñ ci yàlla ne maa ngi nii jàkkaarloo moom ci kaw asamaan ca xaras muy diri ay mbalaanam maanaam waa ji moom biñ ko àttee àttee lislaam ba ba noppi seet na wicc daa daldi di dem duggi àjjana fi saasa ñaar ñiy des ci àdduna nag fas yéene yenoon ay bàkkaar lu ko fi jar yow kay ki faatu faatu na mi ngi ci mi ngi ci loxoy boroomam coobare yi boroomam boroomam sañ cee def lu ko neex yow nga taxaw di wax ci moom ab safaan ay waaj ji lu ko fi jar moo tax alquran ne ay yuhibbu ahadukum an yaakula laxma aqihi mayitan fa karitumu wattaqullah inna allaha tawwaabu rahim sadaqallahu alazim kon mbokk yi man kaana yuminu billahi wal yawmi al fal yaqul xayran aw li yasmut loolu la alayhi salaatu moom la Sëñ Tuubaa doon firi ci euh, baat yi mu teg ci beneen wax ju am njëriñ mu ne nit ki yu bëggee jàng alquran na njëkk a ci saytaane waaw nit ki saa yu bëggee jàng na muslu ci saytaane njëkk muy jàng tam wax bismillahi rahmaani rahim kon ndekete aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani muy ak taawus ak basma la moo ne ndekete luñ sopp la ci jàng alquran lu jiitu nga koy def lan mooy njariñ li sëñ Tuubaa ne jiital aouzu billahi mina sheytaani rajim ci lépp looy def dalay dàqal mboolem li ci nekkoon ci ay yàqu-yàqu moo xam yàqu-yàquy xol la moo xam yàqu-yàquy jëf la moo yàqu-yàqu yuñ xam la moo xam yàqu-yàqu yuñ xamul la kon aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi lépp lu ab jullit di def na ko ciy jiital ndax kat aouzu billahi min asheytaani rajim nee na day dàq mboolem lu ko naroon a yàq bismillahi rahmaani rahim da lay xëccal mboolem lu ko naroon a defar daal ciy teg ne da cay teg lu am solo ndax daf ne li waral loolu mooy alxuraan kat deesu ko laal lu dul cëg daal di ne waaye nag ñaari façon laab dafa am daa am laabug saahir am laabu laabug baatin laabu saahir gi mooy laa yamasuhu illa almutaharuun tanzilu min rabbil alamin loolu moom ci alxuraan la nekk ñun yëpp xam nañ ko mooy kaamilub alquran bii nit sañu koo laal te jàpput ku ko laal te jàppoo am nga bàkkaar moom ku am sobe du ko laal ku war a sangu ji da ngaa war a sangu door koo laal ku sam jàpp toj da war a jàpp door koo laal boobu moom lu leer la taharatu zahir bi moom leer na léegi nag bu baatin bi nag moom lañu war a xam bu baatin bi mooy taharatul qalb mooy képp ku sab xol laabut képp ku sab xol laabut mënoo dégg ay maanaam kon laabug saaxir gi mooy boo waree jàppi nga jàppi waaye laabug baatin gi nag mooy nga laabal sab xol ngir nga mën a jot ay maanaam waaye mën a jot yi neexitu alxuraan karim kon loolu moom lu leer la mooy que ni aouzu billahi min asheytaani rajim ak bismillahi rahmaani rahim lu ñu sopp la ci lépp looy def rawatina nag booy jàng alxuraan sooy jàng alxuraan na nga njëkk a wax aouzu billahi min asheytaani rajim bala ngaa tàmbali ndax lan moo lay jañal lépp lépp loo xam ne moo ci nekkoon ci yàqu waaye moo lay xëccal boo ne bismillahi rahmaani rahim moo lay xëccal mboolem loo xam ne moo ci nekk ci ay njariñ ndax kat alquran dee su ko laal ci lu dul ak laab moo xam laabu zahir la moo xam laabu baatin la laabu zahir gi mooy boo waree jàpp nga jàpp waaye boo waree sangu nga sangu door koo laal laabu baatin gi nag mooy day laab laabal sa xol ba tax nga mën a dégg ay maanaam mën a jariñu ci lépp loo xam ne moo nekkoon ci yow ci ay ci alquran man la ko ci ay ayib alquran man koo raxas ci yow mu daal ciy teg ne xam-xam kat ñaari xaaj la alxikum alxukumu wal xikma lan mooy alxukumu mooy li nekk ci diggante yi war yi nga xam ne yàlla daf la koo digal ne la lii lu la war la loola moom loo ci def doyut mooy kani li lay li lay yàlla teg ne loola war la loola moom mbooleem loola war da nga ko war a def loo ci bàyyi am bàkkar yi nga xam ne ay mandubaat la nag loo ci man defal loo ci mën riit du la yokk bàkkaar yi nga xam ne yu dagaan la it loo ci mën a jëfandikoo jëfandikool waaye it bu ko fexe ba di ko araamal ci yow nag ndax ab jullit it sañ sañ te daganal mooy li la yàlla araam daganal nga bëgg koo araamal ci sa bopp loolu it ab jullit ko def waaye yi nga xam ne dañ koo sibit nga wattandiku ko yi nga xam ne dafa xaraam nga bàyyi ko lan mooy xëkk loolu mooy xukkum mooy àttee islaam rek ci gàttal lan mooy xikma mooy loo xam ne boole na alxukumu waaye nag lamboo na lu ëpp alxukum loolu mooy lan moom la alquran di wax naan wa man yuuta alxikmata faqad uutiya xayran kathiran yàlla nee na xikma di ku ma ko jox ci yéen defal naa la ak mbagar feggu ci waxinu wolof mooy ku ma jox xikma mooy jox naa la yiw wu rëy rëy rëy rëy faxad uutiya xayran kathiran mooy jox naa la yiw wu rëy rëy rëy lan mooy ma moom la tubaab di wax sagesse mooy benn wax bu am njariñ boo xam ne mën nga cee firi ay téere comme sëñ Tuubaa téereem bi ni mu ko defee nga xam ne ay baat la indi wala ay xadis wala ay aaya alquran waaye nag lim ci tënk mën naa defar àdduna domaine boo xalaat rek andi na ko ci mu dal ci teg ne suñu borom tabaraka wa taala di bi mu bindee ruux yi dafa wàqante ak ñoom dafa wàqante ak ruux yi moom borom bi tabaraka wa taala lan la wàqante ak ñoom bi mu bindee ruux yëpp daf ne alastu bi rabbikum ruux yëpp dañoo wuyu ne balaa ruux yëpp balaa lañ wax waaye nag daa am yoo ruux yoo xam ne dañoo wax balaa tawaan am yoo xam ne dañoo wax balaa kërhën lan mooy tawaan ak kërhën mooy ñeekat seen conscience tranquille lañ àndal ne yàlla yaa ñu moom ah kay nangu nañ ne yaay suñu borom kenn forcé wu leen ko am na ci ruux yoo xam ne rek dañoo sëñta bañ dañoo sëñ ta bañ ne mooy seen borom moo tax ñu nangu ko looloo tax alquran di wax naan fa minkum kaafirun wa minkum mu'min yi nga xam ne yàlla li nga xam ne dañu dañ koo wax ci coobare ñoo moom seen imaan day wéy ci seenub xol waaye ñi nga xam ne dañ koo wax ci sëñ bañ nag ñoo moom yàgg yàgg seenub imaan day dañ fa minkum kaafirun wa minkum mu'min waaye yàlla ba mu bindee ba mu bindee ruux yi ba mu ne alastu bi rabbikum yépp balaa lañ wuyoo léegi nag suñu boroom bu bëggee euh, bu bëggee classé nag ci lay sepp sepp yi nga xam ne dañoo wax balaa tawaan ak yi nga xam ne dañoo wax balaa kërhan mooy ñi nga xam ne dañoo nangul yàlla ci seen coobare ak ñi nga xam ne dañoo nangul yàlla ci sañ tabañ képp ku nangul yàlla ci sa coobare yàlla dalay bàyyee sa imaam nga demee ko su kaw suuf ñi nga xam ne dañoo nangul yàlla ci sañ tabañ nag ñooñu moom bu ñëwee ci kaw suuf seen imaam day rikki ko loolu sëñ Tuubaa ko jàngale mu daal ciy tegaat ne nit ñi ñaari xaaj lañ am na ku baax albarru wal faajir kan mooy albar maanaam ku baax mooy koo xam ne lépp lu gis ci nit ki ci lu baax mu def ko su ko mënee roy da koy roy su ko mënta roy da koy jéem a toppandoo da koy jéema toppandoo kon képp koo gis muy jéem a roy doy doxinu saxaaba saxaaba ya wala muy jéem a topp suñ doxinu suñu mag ñi mbokk yi kooka ku baax la ñun nag dafa am lu ñu dal mooy dañoo yaafu suñu yaafu tax na saa yu ñu tuddee ne Seydil Haaji Malik fii la jaar nii la doon wutee xam-xam ñu ne loola mayug yàlla la mbokk yi am na ci loo xam ne du may de ak góorgóorlu la buñ ne maam Cheikh Ahmadou Bamba fii la jaar fee la jaar fii la jaar ci wàllu xam-xam nga ne am na ci loo xam ne ak mayug yàlla la naam mayug yàlla am na de waxuma ne mayug yàlla amut de waaye am na ci loo xam ne rek mbokk yi ak góor loo koy mayee de góorgóorlu looy tax doon góor de kon fépp foo xam ne dañ ne la ku baax jaar na fa maam Cheikh Omar Fouti fii la jaaroon ak noon bi yow nga taxaw ne Cheikh Omar lam ko nga nga taxaw ne maam Cheikh Omar fam fam jaaroon doo fa jaar lam ko jaraloon dala ko jëralul rek ndax kat yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na yittey doomu aadama jote na ca la ca ginnaaw arasuk suñu borom bi tabaraka wa taala loolu mooy lan mooy doomu aadama bi ak góor-góorlu mën na koo may lu ne léeg-léeg nga waxtaan ak ay mbokk benn bis am na menn mbokk mu may waxtaanal ne ko waaw lu tax ay soxna jaara amatuñ mu ne ma ay Mamour Anta Salif yi amatut waaw benn soxna bu may waxtaanal ne ko lu tax ay soxna jaara ameetut mu ne ma ay Mamour Anta Salif loolu waxin la mooy lu tax ku baax ba mel ne soxna jaara mënatut a am mu ne ma góor gu baax ba mel ni Mamour Anta Salif yi bareetut loolu nag mbokk yi war dañ koo jàngat ndax kat Maam Mor Anta Sali lu def mooy dëgg la suñu boroom a ko boole fu baax kenn tànnalut sa bopp fa ngay juddoo waaye nag mbokk yi mbokk yi suñu boroom li muy maye du ko jaarale ci ay askan ak leneen ak leneen may suñ boroom romb na romb na ay askan déedéet suñ boroom romb ak mayam romb na foofu ndax ku bokk fu ne may na ko lu ne may suñu boroom yi romb na ay askan. mamorante sëli góor yàlla la woon goo xam ne jàng alquran ak di ko jàngaleeg ñax ñaqam la nekkee woon jàpp naa ne ku teg sa tànk fam ko tegoon suñu borom mën na laa may lam ko mayoon soxna jaara lum mu fi nekkee woon jàng alquran ak jàngale ko ak topp ndigalul borom këram jigéen ju jaara fa soxna jaara jaaroon yàlla man na laa may lam mayoon soxna jaara waaye buñ gëmee ni ay mamorante sëli amatul moo tax ay soxna jaara mënatut am mbokk yi baax day gën a réer rek kon kan mooy albar mooy koo xam ne lépp lu gis ci nit ci lu ci lu baax ak ku mën a doon nag jàppal ne lii war nga ko man a roy soo ko mënta jot à cent pour cent yi nga jot ko à cinquante pour cent wala quarante pour cent sax baax na ba vingt pour cent sax baax waaye nit yu mel kenn mënu koo mel mbokk yi loolu kenn du ko wax kon képp koo gis muy jéem a teg tànkam fa ñu baax ña tegoon ko wala mu gis lu baax lu nit def mu di fa jéem a teg tànkam mbokk yi xamal ne ku baax a ngóob boo gisee alfaajir yit maanaam koo xam ne ab kàccoor la xoolal la muy def nga natt ko ci sa bopp wa fi anfusikum afalaa tubsiruun alxuraan ko wax nee na yéen nit ñi kenn ku ci nekk sa moroom na la doy ab seetu mooy li diw di def ci lu baax man ndax maa ngi koy def ah diw mii diw mii amul waxtu mi tar di jàkka ja de téema ko cee jéem a roy diw mii day julli fajar de téema ko cee jéem a roy diw mii nangam ak nangam waaye nag diw mii daal saa yu ma génnee man ca kartukaay laa koy romb rek waa moom li muy def nii man ndax maa ngi koy def ndax man war naa koo def wala waruma koo def diw mii daal saa yu ma génnee ci nangam yi laa koy fekk maanaam ci barabi fowukaay yi laa koy fekk majalisa saxaawa yi wala diw mi maa ngi koy gis muy def ab safaan boo xam ne yàlla gërëmu ko ak bu mën a doon man man a tëj sama bopp ba xam ndax diw mii li muy def man maa ngi koy def wala déet su dee damaa gis ci ayib ayib ci moom joo xam ne mi ngi ci man mooy dama koo gis muy fen wala ma gis ko muy jëw wala ma gis ko muy njaalo wala ma gis ko muy kart yii bu ma ko ci gis muy def damay natt ci sama bopp ba xam li muy def ndax maa ngi def lu ni melom déet wala ma koo gis mu ñàkkee julli wala mu ñàkk war wala mu ñàkk natt asaka damay natt li muy def ba xam man ndax maa ngi koy def wala déet su ma koo gisee ci sama bopp nu may def damay daal di tuubal yàlla fas yéenee génn ci loolu nag mooy que nit ku ci ne sa morom na la doy ab seetu mooy na ngay xool ci di di corriger sa bopp soo ko gisee mu nekk ci safaan booba nga gis ne sawaan bi nekk yow yaa ngi ci jéem cee génn soo ko gisee mu nekk ci lu baax loo nekkut it gaawal daw roy ko ci loolu la alxuraan di wax naan wa fii anfusikum afalaa tubsiruun loolu la sëñ Tuubaa wax ne wa in lam tara wa in lam tara dalika al ayib fiik fa firra minhu wala taqrubhu tanju minhu wa yunja minka wa salaam mooy bu dee ayib jooj da koo gis ci yow daw ko bu dee gisoo ko ci yow bu ko jéem a jege bam lay wàll ayibam jooji yi soo ko defee da nga mucc mu daal ci teg ne xol boo gis ak làmmiñ woo gis maanaam bépp xol ak bépp làmmiñ ak cër yi ci des am boo ci gis am na dëkk am na dund daan ne dëkkub xol mooy at tawxiid mooy at tawxiit ci ab xol rek la mën a dëkk wéetal yàlla ab xol rek ko ko mën a def mbokk yi su ma ne dëkkub xol mooy tawxiid su ma ne dëkkub tawxiid mooy xol lan mooy ab dundam mooy yéenew yiw ak lépp loo xam ne toq na ci xel ci lu yàlla gërëm mooy yéenew yiw ak mbooleem loo xam ne day toq ci am xel te muy lu yàlla gërëm kon mbokk yi ab xol tawxiid rek a ko mën a dëkke lan mooy tawxiid mooy wéetal yàlla tabaraka wa taala ab xol kon mbokk yi tawxiid rek a fa mën a dëkk aw làmmiñ nag mu ne aw làmmiñ wa watanu lisaani ad dikr wa quutuhu qawlul xayr aw làmmiñ mbokk yi benn dëkk la am mooy zikkar mbokk yi alaa bi zikrillahi tatma innul quluub alquran nee na xanaa yëgoo leen ne ci tudd yàlla la xol yi di dale di mooy dalal xol yi xanaa xamoo leen ne alaa xarfu tanbiih la de alaa bi dikrillah xanaa yëgoo leen ne ci tudd yàlla la xol yi di dale alaa bi dikrillahi tatma innul quluub kon mbokk yi ndekete dëkkub tawxiid mooy xol wala dëkkub xol mooy tawxiid waaye dëkkub tudd yàlla man dëkkub làmmiñ mooy tudd yàlla dalug làmmiñ mi ngi amee ci tudd yàlla mbokk yi dundub aw làmmiñ aw làmmiñ ci lan lay dundee mooy ci xawlul xayr mooy wax lu baax aw làmmiñ mbokk yi yonent bi aleyhi salaatu wa wax naa ko ci xadis bi jiitu léegi lu baax nga ci war a wax boo ci mënta wax lu baax nga noppi mbokk yi làmmiñ nag daa garaaw làmmiñ moom daa garaaw garaaw gim garaaw moo tax xoolal xoolal soldaar yi ko suñu borom defal trente-deux soldaar gis nga fa ko suñ borom dugal jël fanweeri bañ ak ñaar woddee ko ko jël aw tuñ woddee ko ko mbokk yi kon mbokk mi saw làmmiñ lépp loo ci wax bala ngaa ñéppi sa gémmiñ di wax rek na ko sam xel liggéey bu baax a baax a baax a baax sëñ Bay Jaxate ndeysaan radiyallahu anhu kenn la ci mag ñi sëñ Tubaa Xaadimu Rasuul yar daa waxoon lu am solo daf ne woon làmmiñ ñekk fetal ak naar wu góor wu rëcc yam nee na làmmiñ ak fetal ak naar wu góor wu rëcc ñett yi ñoo yam ndax la loo ci xalaat bam ne fees dem fu la neexut mbokk yi aw làmmiñ saa yoo ci waxee ab safaat dana dem ba dem foo bëggul mu àgg fa mbokk yu fetal yow mi ko yor di ko tiire yow fa ngay jam rekk ngay xool waaye mën na koo romb ba jàll fu la neexul aw naaru góor mbokk yi bu rëccee bul xam fu muy àkki ji mën naa day dem ba dem fu la neexul moo tax sëñ bay jaxate làmmiñ ak fetal ak naar wu góor wu rëccee yam loo ci xalaat ba mu ne fes dem fu la neexul kon mbokk yi aw làmmiñ lenn rekk moo koy dalal mooy tudd yàlla waaye benn dund leen rekk a ko mën a dundal mbokk yi mooy wax lu baax cër yi ci des nag mooy bu weesoo xol maanaam alqalbu mbokk yi xam ngeen ne mooy malikul aada moom mooy buurub cër yépp looloo tax ñaar yi nga xam ne muy xol ak làmmiñ xam nga xol mooy fas làmmiñ mooy tudd daanaka mboolem cër yépp ñaar yi ñoo leen di coordonné seen cordinateur maanaam seen seen président mooy xol coordinateur bi mooy làmmiñ wi looloo tax mu tudd ci ñaar yooyu daan yeneen cër yépp nag ñoom seenu dal mi ngi tegu ci ñaar yi mooy jëf lu yàlla waral ci yow ak lu yàlla sopp ci yow mboolem cër yépp mooy jëf lu yàlla waral ci yow ak lu yàlla sopp ci yow lan mooy seenu dund mooy lu dagan loo xam ne dalay àggale ci yàlla mooy lu dagan loo xam ne dalay àggale ci yàlla mu daal di waxaat ba tey ne saa yu la ak télé gaaree ci mbir moo xam ne yàlla daf la koo digal nga war koo def wala saa yoo tëree bàyyi loo xam ne dañ la koo tere mooy yow kat lii suñu borom def koo digle qiyaamul layl qiyaamul layl wa min al-layli fatahajjad bihi naafilatan laka asaa an yab'asaka rabbuka maqaaman mahmuuda lu mel ni naafila guddi yow bëgg nga ko ci sa xol waaye mënoo koo def su boobaa mu ne fastain alayhima bi tawbati nasuuh mooy li la yàlla digal nga bëgg koo def te tële ko te xamoo lu tax nga tëlee ko waay waay waay waay tuubalal yàlla mën naa am da def bàkkaar ndax bàkkaar de ko da koy def nit ki léeg-léeg mu def bàkkaar boo xam ne mën na koo téye julli fajar yow daal julli fajar nga bëgg maanaam julli suba ci waxtu wi nga bëgg waaye dangay biddanti rek xamoo lu la tax di biddanti tuubalal yàlla dangaa nekk ci mooy yàlla te xamoo lu la koy def loo bëgg nga koo bàyyi kool tuubalal yàlla mooy daal comme boo bëggee def lu la yàlla digal te mënoo ko wallaay tuubalal yàlla soo dee da bëgg a bàyyi tere yu la yàlla tere te mënoo ko tuubalal yàlla kon daal jaam bi moo xam lu baax la moo xam safaan ba lu mu ci mën a doon na tuubal yàlla bu tuubalee yàlla suñu borom tabaaraka wa taala dana ko dimbali ba mu defee ko ni mu ko bëggee kon daal yaa qawmi staxfiru rabbakum summa tuubu ilayhi yursili samaa aleykum midraaraw wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum loolu la alquran wax mooy yéen ñi ni nga tuubal leen yàlla sàkku leen jéggal ci borom bi tabaraka wa ndax bu ngeen ko defee yàlla kat dana wàccee ci asamaan ay xéewal tëbb leen ko waaye yàlla yi dana leen dolli kàttan waaye yàlla yi dana leen dolli euh, kàttan kon daal yursil samaa aleykum midraaran wa yazidukum quwatan ila quwatikum wala tatawallaw mujrimin kon euh, mbokk yi dafa mel ne xam naa ne ñu may signaler ni ma euh, heure bi jeex na li duufoon ci nag bi daa xajandoowul ci cin li euh, moo li ma doonoon seen émission keppaaru mag ñi ngeen di ko amee fii ci réew mi TV ngeen man koo topp dimanche bu jot 22h ba minuit man koo toppaat it ajjuma quinze 14h 16h ba 17h.